bokki julli ci gannaaw ba nu sant yàlla julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam noo ngi baal xaq ñépp di balu xaq ñépp yàlla nañu yàlla boole jéggal suñu diggante ak moom te dox ci suñu diggante ak suñuy moroomi jaam tomb bi ñuy fàttalente tey day aju ci lenn yenn yi nga xam ne su fi nit bàyyi ko dañu ko koy seereel kenn ku nekk di wane nu mu ko xame woon ak lu mu xamoon ci moom ak kooka ab taxawaayam bu mucc ayib waaye bokk yi yàlla na nu yàlla dimbale ba xéer nu ci yoon wi jëm ci dëkkam bi muy wax ragal yàlla ndax képp koo xam ne jaar na ci yoon woowu teg ca tànkam di dox nam ma ne tey fas yéene saa su nekk muy weesu fa mu toll woon démb loolu ku ca nekk dana bàyyi xel yàlla ci lu bari bala mu ko wax wala mu di ko jëf ñun ñépp nag maase nañ xamadoo ne kër kër ji yépp ji ñuy xëyee di ko gontoo dara weesuwu ca luñ lekk luñ naan luñ sol ak bu wéree di ñëwee lu ñu jënde garab yu ñuy fajoo su fi nit bàyyi ko ñu dëj ko dëj bu rëy saraxal ko sarax su rëy daanaka alal ji lépp weesuwut loo moo ne kër kër ji day am na ci kër kër joo xam ne ku ca kër këri jëm bis dana ñëw mu am lum lekk lu doy sëkk lu dul jeexati waaye dana am lum sol lu dul ràpp waaye dana dëkk foo xam ne fi kenn du ko ne toppal ma toog te bokk yi loola la koy tax am nit bu ëllëgee ba ca jëkk te mooy yóbbaale ci des yépp mooy gëm yàlla gu dëgër goo xam ne tey bu ñu ne ko woon kaay ñu rey la mu nangu ndax dëgg gum dëggu ci moom waaye nag wane ko ci dundam gépp mu fexe ba lépp doon lu baax maanaam daal lim def ci lu baax lu mu yàgg-yàgg bu ñu ko nattee lu baax li ëpp fuuf ndax bokk yi lu fi nit mën a am lim koy doyee ca fam tukki weesuwut buy ñibbi yóbbaale lu bari rekk kon yóbbal bi gën a am solo ci kuy dund ngir mu war koo yóbbaale àllaaxira bar sax balaa amal xiyaama dikk mooy jëf yu baax yu bari yu fees dell ak dundam ndax kat loolu ku ci nekk ba génn àdduna te seere jot sañes na koo seereel te seereel ba ca gën mooy boo xam ne ka koy seere ña xam la muy wax lépp xam nañ ne ma ngay wax dëgg ndax suñ demee ci suratu talaq fii yàlla di diglee nu ñuy fase bokk na ca na ngeen wut ay seede te ñay seede nañuy wax te yàlla tax wa ashhidu dhaway adlin minkum wa aqimu shahadata lillah loolu noonu mu amee noonu mu ku tuddee ci talaq parce que loolu day topp dundu nit ki lépp lépp lu muy seere nañ seet ñay seere ñum doon bu ñu leen tànnee ba xam ñañu war a ñi war a seere lañ ñooy tax ñuy seere mu wér waaye am na feneen fi muy wax ci diggante jaay ak jënd aaya boobu yaa ayuha alladina amanu ida tadayantum bi dayni ila ajali musamman faktubu mi ngi cay wax naan wastashhidu shahidayni min rijalikum fa in lam yakuna rajulayni fa rajulun wa imraatani mimman tardawna min ash-shuhada kon seere ki koy def dañu koy tànn bokk yi yàlla mi ngi wax ci alquran ci jëf ju baax ju nit doon dunde fii ba bu faatoo ñu mën a rafet ci moom njort yàlla nee na ci alquran képp koo xam ne dundam gépp lu baax la fi nekke woon ba ñépp xam ko kooka moo xam góor la walla jigéen la te fekk jëf ju baax joojee da koo tënk fekk mu doon ab jullit am na ñuy def lu baax tudd lu baax nit ñi di ko jariñoo di leen bënnal ay teen di leen tabax xali fajukaay di leen may ab dund waaye li leen di xaj ab yool mooy ñàkk gi pas-pasu gëm yàlla bi wér ñooñu moom la yàlla di wax naan walladina kafaru amaluhum kasarabin bi qiyaatin yaxsabuhu damaanu maan xata ida jaahu lam yajidhu shay'an kon képp koo xam ne dafay nekk ak dundam gépp lu baax ba ñépp mën koo seere te fekk ab jullit la ne yàlla nee na teraanga jure jooju mu amoon ba tax mu mën a def lu baax teraanga nag du alal kese waaye teraanga jooju mu amoon ba mën a def lu baax ba ñépp xam ko su ëllëgee lay raw yàlla ñu ci yàlla boole waaye mi ngi naan it ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla ba faatu te seen gëm yàlla googee lépp dañ koo jëflante ak jaame yàlla yi bañ xam ko nee na suñ faatoo bu ëllëgee su leen nit ñi tegut bëtit ñu ngi ci jàmm yàlla na ci yàlla boole yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne nit ki su faatoo ñett dana ko topp waaye bokk yi ñett yi ba ca mujj mat na bàyyi xel de yonent bi nee na ku faatu alalam dana ko topp waaye ay bokkam danañu ko topp bokk yi nag day yóbbaale xarit yeeg am di jàmm ñépp ñetteel ba jëfam suñu dencee ba noppi ba ñaan bay yeweku te sëñ bu mag bi di wax ci téereem bu ñuy wax tasuudu subaan wala tasuudu wala maxaaliqu niraan ci téere yooyu naan loolu xadis yonent bi lay leeral nit ki su faatoo buñ ko dencee ba noppi tokk tokk yi tànki nit ñay dem ña cay mujj da koy dégg maanaam bala ñoo dëdd rek ñu jàkkal ko mu jàkkaar jàkkaarloo ak ñi muy jàkkaarloo su boobaa nag fekk alalam moo ci kan mooy otoom bi ko doon andi benn ñaareel bi liñ jënd bàmmeel bi bu fekkee fii jaay bàmmeel la li ñuy wax daal mu anu tajhiz ca àllam lay doon waaye suñ dencee ba noppi ba ñaan ba wax la ñuy wax lépp ba jóg di dem alal ja day demaale bokk ya demaale xarit ya demaale waaye kenn rek moo fay des di ko wétti li muy jëfam ju baax jëfam sax laay wax jëfam su dee ab jullit la jëfam ju baax dana dalal am xelam ba mu wóor ko ne li ko tàmbalee fii bis ni ki tey ba ba yàlla di woo jàmm yépp jàmm rek a fi xew waaye ka ca des jur ta waxtaane yàlla nañu ci yàlla musal kon bokk yi jëf ju baax yàlla wax na ceeg nun ci barab yu fasanti ko ci alquranul karim am na foo xam ne daf ñuy wax ne jëf ju baax mooy tax a am fii ci àdduna jàmm waaye moo koy tax a am allaaxira moo tax Sëriñ Tuuba mas naa dajale mbooloo mi kenn rek moo dox sama diggante ki ko nettali te fekke woon na ko ba ko Sëriñ Tuuba di wax kooka moo ko nettali kenn koo ko nettali ma ko mu ne mas naa dajale mbooloo mi ne leen fu fi waay gis teraanga joo xam ne boroom nangu du ko liggéey na dem foofa man awma ko waaye fu fi waaye dégg àjjana joo xam ne anu taxu jaamu yàlla it na fa daldi wutali ndax man loola awma ko firi na aaya boobu lool waaye léeg-léeg it ñu gis ci alxuraan yàlla ne seeni jëf bu ëllëgee moom lañ leen di fay wa ma tujzawna illa ma kuntum taamaluun waaye léeg-léeg mu duñu xamal ne fi fi waay man di nekk saa bu bataaxal bi agsee ci moom na góorgóorlu te futtiku tey fas yéene def àdduna bi yépp lu baax kese ndax fu ngeen mën a nekk yàlla nga leen di gis inni bi ma taamaluuna alim waaye léeg-léeg it mu ne bu leen gis gi ma leen wax ne maa ngi leen ko gis doyut am na ñu ma leen booleel ñoo xam ne saa bu ngeen yeewoo bu ngeen dee nelaw moom kuy nelaw mu ne su ko du bindal dara su fekkee nelaw yi jàmm la su fekkee nelaw jàmm nelaw yoo xam daal lekk lu lew naan lu lew tëdd fu lew buy nelaw moom dañ koy bindal tuyaaba sax far waaye bokkut ak nelawi ku naan sàngara wala mu dara gew kooku dañuy wéy di bind war nañoo mën a wéy di bind mu ne boole naa leen rek ñoo xam ne dara du leen raw ci seen diggante lu ngeen wax danañu ko bind su ngeen tuubut danañ ko classé ci carnet bu mag ba waaye lu ngeen jëf itam danañu ko bind su ngeen tuubut ñu bind ko ci carnet bu mag ba ba ba ëllëg mooy fi muy wax ne inna aleykum la xaafidina kiraman kaatibina yaalamuuna ma tafaaluun ak maa yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid waaye léeg-léeg ñu gis ci alquran mu duñu xamal ne lu wëri wëri bi yàgg-yàgg dangeen mas a teew ci sama kanam te su ngeen teewee fi sama kanam kenn ku ci nekk lii xew ci àdduna ñu naan audité di la déglu ngay wax déedéet ndax ku ñuy déglu muy wax mën naa wax lu nekk lu ko ciy génne waaye nee na su boobaa benn day laaj cër yi doon def ñooy wax yawma tashhadu alayhim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun ak bu ko defee nit ki naan yow loxoog tànk ak bët ak lu nekk ci cër yi yépp maag yow a àndoon di ay wëllëre tey lu tax nga di ma sereel li cëree naa ko ñun kat yàlla mii la doon waxloo ñuy dégg moo ñuy waxloo tey nga war a déglu wa qaalu li juluudihim lima shahidtum alayna qaalu antaqana allahu alladi antaqa kulla shayin wa huwa xalaqakum awala maratin wa ilayhi turjaun ak bu ëllëgee kenn ku nekk lam jëfoon dañ ko koy bindal ci ab téeréem jox ko ko ne ko jàngal ñépp di dégg iqra kitaabaka kafa bi nafsika al yawma alayka xasiba mu naan maa defoon nangam maa defoon nangam am na ca loo xam ne nit ñi danañ ko xam xamoon nañ ko am ca loo xam ne keroog lañ koy jëkk a dégg ndekete moo ko defoon kon mbokk yi su boobaa fii ma taxaw fu ko gën a kawe la nit ñi taxaw di wax ñépp di leen dégg kenn du ne lu mu jubloo wax day leer nañ moo tax yàlla wax ci alquran ne wa kulla insanin alzamnahu taairahu fi unuqihi wa nuxrij lahu yowma alqiyamati kitaban yalqaahu manshura loolu moo jiitu iqra kitaabaka kafa bi nafsika alyawma alayka xasiba kon bii mujj mooy danañ gis ci alquran yàlla naan lu waay def boppam wolof fireeku ne jëf jël man amila saalihan fa li nafsihi wa man asaa fa alayha mel na mag Cheikhul Xadim firi woon na man amila saalihan fa li nafsihi ci ci ay maskaam ak wa man asaa fa alayha dane man amila saalihan fa li nafsihi masque gi féete suuf laam gi fa li nafsihi mooy fa mu daan waxe ca fu jëkk na suutul kahf wa amma man amana wa amila saalihan fa lahu jazaa'ul husna dal di koy leeral ci wolof yu leer dal ne ku négoon ba bët di bëgg a sébbi ca takk yam ak ña amoon mu wut aw jiw wut aw lew bàyyi ko ba mbay ma sont mu jënde ko daa ba war ko ci kaw jëfam ju la kay jëfam ju baax la war moo tax laam googu ma war war masque ak suuf gi masque gi ci suuf fali nafsi waaye nee na safaan ba mooy waman asa afa alayha moom amul génn masque ak suuf lépp masque kaw la mooy ku indi ci jabi loo xam ne it dañ koy tere fu loola jëm moo koy yanu ci boppam moo tax masque yépp féete kaw borom kon léeg-léeg nit faatu am luy bëgg a jege téeméeri at ndekete bokk yi at yu bari doonut ne moo am solo ci ak dund waaye ak dund la ca am solo mooy la fi waaje nekk woon rek la taxul ñu indi ko fi mu nekk ko fi lu mu gàtt gàtt gannaaw ma nga ca woon rek jaanam wàcc na li taxul ñu indi ko ci kaw suuf def na ko waaye bokk yi téeméeri at yu bëgg a manqué tuuti daanaka manes naa wax ne juróom-benn fukki at yépp mu nekk ko ci boppam faatu ñu jox nit ñuy seere kenn ku nekk naan ak mën noon a jaamu yàlla ak mën noon a def lu baax ak mënoon a ak mënoon a ak mënoon a ak mënoon yépp yàlla xam na ko nit ñu bari xam ko ndax su fekkee bokk yi jëmm ji bi mu fi nekkee ak atam yu bari ak lu ñu ko mën a tuddal ci ay yu baax yu mu def fexe na ba nit faat waxtu ba tàyyi fexe na ba nit gis cër boo xam ne waru ko woon a gis ci ci keneen fexe na ba nit xool nu wutoon a xool fexe na ba nit dem fu mu wutoon a dem ñàkk fa alal kooku sëñ bi bokk jëfam yu baax luñ ko ko seereel seereel yërmande yàlla waaye yaatu na nag wa rahmati wasiat kulla cheyin waaye nag fa sa aktubuha lilladina yattaquuna wa yutuuna zakata walladina hum bi ayatina yuminuun su fekkee seere yi nit ñi seere képp ci ku fi bàyyeekoo ak lu mu fi mënoon a nekke ca la yàlla di àtte kon yàlla àtteetut léegi nit ñi ñooy àtteel ku leen soob mu dem fa leen neex ndax su fekkee nit moom su buy dund amuñ ci moom soxla waaye saa su faatoo wàlliw la day daal dëkk ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam dëkk ak kam yaakaaroon su boobaa ñi nga xam ne dañ doon góorgóorlu ñoom teg seen tànk fekk ko kañ yaakaar tegoon ñooñu góorgóorlu lu mu leen di jariñ léegi su fekkee ku faatu moom bu ma see yóbbu nit mu aji makka mu def ko wàllu yi day ko yóbbu aljanna yéegal ko ci barsaxu sidna muhammad bi ñuy wax sallallahu alayhi wa sallam su fekkee nit ki mas naa mas la romb nuyu la rek donte nuyoo baax na waaye fay ab nuyoo moo gën di farata nuyoo nag daloom nuyoo moo gën di farata fu mu romb dana taxaw nuyu la rek moo tax ñu bëgg ko yóbbu aljanna waaye leneen lam fi nekk woon lépp yow bëggoo kenn gis la ca bëggoo kenn dégg la ca waaye wolof moom ku faatu nit ku ñuul sax ku faatu rek ab ab dëkk naag yàlla la ñuy wax wàlli yu la ma nga aljanna bokk yëf yi dañ ko yombal lool dañ ko yombal lool léeg-léeg nit nekk ca la ko neex faatu ñu jangti jangtee ko indi ko Tuubaa wala feneen fu ñu yaakaar dal di ne sëriñ bu mag bi nee na woon suuf si lam ca waroon a def da suuf si dana ko ca wuutu suuf su mën a wuutu kam yi wuutu su ko waree rëfle da koy rëfle su ko waree génn waat it da koy génn waat mu dellu fa mu jóge woon ndax soxla bu ko loo xam ne day dund amul njariñ sëriñ Fallilu Mbakke waxoon na ko daa dem sowu ndakaaru ñu naa ko négal ba weer wi dee mu ne waaw luy luy dund amul njariñ su dee lu muy amee lu muy njariñ nit kon suuf si day wutu nit day wutu sëriñ Tuubaa ci nit ki loolu ku gëm yàlla mënoo ko da nga ko da nga ko mën a nangu ndax yàlla ndax dugaloon nañ dugaloon nañ jaamu yàlla ci kaw saw ci sawara ñu ñépp xam yàlla jox ndigal sawara mu sedd guyi yaa naaru kuuni badan wa salaaman ala ibrahim wa araadu bihi kaydan fa jaalnaahum al axsarin kon ñépp mbindeef suñu borom lañ waaye ginnaaw suuf mën naa wuutu sëriñ bi jëfanteeg waa ji suuf si it mën naa wuutu sëriñ bi refule waa ji ca ne ko léegi man soxlawuma la ndax ñaar rek moo fi nekk ñii dañ ñii dañ leen di soxla ñii duñu leen soxla koo am soxla nag moom ngay jël taf ko ci sa bopp rawatina bu dee koo xam ne lam waroon a nekk ma nga ca ndax ñoo suuf si ñoo bokk di ay jaami yàlla ak mbindeef yi ci des yépp nit ñi rek ngay gis moo tax ñu tudd leen asaqalay nit ak jinne ñoom rek ngay gis yàlla digle dara ñu di ko def di ci génnaat di def ak bàyyi waaye bokk yi am na ñoo xam ne suñ doonoon ay jullit it te kenn mënu leen caa génne ndax yàgg nañoo dégg ñu laa ilaha illallah muhammadun rasulullah ba mu yàgg ñu dégg leen ñu aji màkk da leen gis si jàkka yi waaye nag su fekkee jullit la boo xam ne mus sa bàyyi tarab yàlla nag ba nit ñi xam ko kooku dañ koy bàyyi ak yàlla waaye bu ñu ko jéem a àtte def ko def ko walli def ko yéege ko ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam te yonent bi yombut a dem ndax ku toll ne Cheikhul Khadim ak ñi nga xam ne dañoo bokkoon waara wu ñuy bay liñ gën a bëgg mooy jege yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba tax ñemi wuñu woon a lekk ñemi wuñu woon a naan ndax ku lekk ba suur naan ba màndi mën naa tayal gëmmentu dikkal ko mu nelaw te temps boobu ñuy nelaw donte yàllaa ko booleeg ñoom loolu dañ ko daan moytu ba mënatuñ ci pexe waaye lépp bëgg lépp ñu kër këri ko muy bindal ñu bindal leen ko ci seen téere boobu nga xam ne bu ëllëgee suñuy jàng ca kaw ñépp yi dégg ñoom ci seen bopp duñu am kersa seeni xarit duñu am kersa seeni bokk duñu am kersa ñu leen yaakaaroon duñu am kersa moo leen teewoon a nelaw moo leen teewoon a lekk am na ci ñoo xam ne far daanañ sëgg ba far seeni bët yàqu ndax ñu mënatuñoo xool ndax di bañ a xool lu ñu warta xool am na ñoo xam ne toog nañ ba seen tànk yi far nagam ñu jële ci wéré di ba faatu ndax lan bañ a dox rek ci lu dul lu ko jar wala laal ci seeni loxo lu ko jarul loo leen jox tegal foofu la ñuy wax am na jaamukatu yàlla bu ne woon fii Tuubaa foofu lay jeexale ñu moytu bu baax seere ndax kat ku seere nit ne man maa ko seere bu ñu koy àtte des na la woo yàlla na fekk nga xam ko xameen gu leer loolu gis nañ ko fii ci àdduna jaamu ko te yàlla boobu boroom xam-xam la woon bu jàngal ñu bari sëriñ xasan buso jenn menn mbokkam daal muy tooñanteeg moom ndax ay doomi baay lañ doomi nijaay lañ ak doomi bàjjan ku ko fekkee moom a ko nettali daa fekk muy julli yoor yoor ak julli yoor yoor li ci nekk sittun aw aw sintayni an xayri nabi waxta duha stahabaha ni ko Sëriñ Tuubaa waxe julli yoor yoor muy taaya taaya jàgg koo ko toog toog toog ba yàgg mu génn ñëwaat fekk muy taaya ba mu sëlmalee mu jox ko loxo ne ko di kafa moom naa ko àjjana bàyyi yi ngay def aljanna dong nga jëm te danga fay fekk aw nit aw nit fekk la fa suñ bën a kër kër di bëgg a daanu jàpp ci lal bi ba taxawaat dem waajaat weneen waajtaay gu bokkut ak moom waajoon ñëw julli ñaar rakk yu gën a yàgg yooya sëlmal jooy lu yàgg ne ko foofu nga wax ku la wax ne danaa fa dem ku la wax ne danaa fa dem def ko jël ba ba muy dem xoolul fu mu teg ay tànkam fa daw ndax bëgg a des ci ay loxo rek ci ne àjjana nga jëm ana lu mu say bañ tuuti seytaane dugal ko mu ne ndeke man koy dem aljanna laa ne seytaane fexeele woon benn waay bu demoon ba kawe lool ne yàlla dama bëgg ngoon na seytaane ma rey ko ndax nit ñi noppalu te moo ne yàlla moo ne woon seytaane innaka min al mundarina ila yawmi al waqti al maalum li fekk nit a ngi seetaan daf yi nekk fàtte na loolu ndax cër bi mu am yàlla tegtal ko fa muy nekk ba mu dem ba gis seytaane ci lu gàtt tër ko ba di ko bëgg a rendi seytaane ñaan ko ba mu bàyyi ko ñu songoo wat seytaane daan ko di ko bëgg a rendi ne ko yow jëraloo ma rey koo xam ne ñeent fukki at a ko dese ci àdduna jëraloo ma rey lee nga jeexal mu ne kon ñeent fukki at a ma dese ñaar fukki yi dama koy jaam dama koy def la ma neex ndax man maa ngi bëgg a dee ci beru bu metti bi xiif bu metti bi julli guddi yu yàgg yi ak tadabbur bu metti bi lu ci nekk di ma tiitloo ak di ma jooyloo ñaar fukki at yi dama koy nekk sama bopp tuub ñaar fukki at yi nag xam naa ne yàlla ku tuub mu jégal la ndekete ñaar fukki fan ñeent fukki fan moo ko des ba mu tàmbalee nekk ci boppam ak mujjam ab safaan la mujj bokk yi yàlla kenn du ko jëmale li nga xamoon di ko ca àtte ndax saa boo demee ba bëgg koo niru lekk dara ak bëgg takk ci ay mbiram dara ba ne nii la nii la daan demee wala nii la war a demee rek yàlla dal nay wuute ak loola bu yàgg bokkut ak kenn dara bokkut ak kenn lenn te ci coobareem dong lay jëfe coobare jooju nag muy jëfe joxañ na ay texte ci ne ku ko bëgg a dàkk doonte du ko ñuy dàkk fa ngay jaar yi soo ko yaakaar yërmandeem waaye lu neex nit mu def te bu faatoo dal nay am aljanna ndax gis nañu fa diw ak diw ak diw ak diw bokk yi moom ak diw ak diw ak diw kenn ku ci nekk ak paxam boppam sëñ Abdou Xadir mas na ca def fatwa bu ne mel koo xam ne dañ ko doon may soxna sëñ Abdou Xadir ne ko ñaata nga yor mu wax ko ko mu ne ko duma la ko may kon bokk yi bu nit faatoo te doon ko siiw nañ ca jàngat xam ne yàlla mayewut maanaam yàlla day day day able rek mayewut day able day able képp si ëblaat nee na woon loo gis ñu jor ko cib xaritam moom yàlla la ko jële jox la ko jamono bi nga ko yoree mi ngi xoolaat loxo yu mu koy yu mu koy tegaat bu ko jëlee ci yow ku mel noonu bu faatoo am succès bu nekk maanaam siiw lool ñu dégg ku fu ne ku mën doon rek doon ku ñuy dégg siiw lool bu faatoo nit ñi war nañ saa jàngat ne kenn du fi des bokk yi nag melokaani wi ñuy wanee sëñ Abdou Khadir ci télévision bi dal na xel ci jullit saa suñ koy wane li ci ëpp day toog di ñaanal aw nit wala muy ñëw ci jumaa ji wala muy xutba ci kaw jumaa ji wala muy julli ba sëlmal dal na xel de xel xalaatut muy bañ ko ko génnewaat àllaaxira muy julli ak a sëlmal waaye bokk yi am na ci yoo xam ne yii nag ka ca doon liggéey dana bëgg nit ñi fàtte ko dana bëgg ña ko dencoon ñëpp yulli ko lakk ko bañ ko amati waaye weesu na nit ñi miin nañ xarkanamam ca loola miin nañ ko ci xarkanam bi ci télévision yi ba ko taseeg moom ci mbedd bi xàmmee ko kooku munta tëréer yàlla nañu yàlla defar dégg ak topp te ubbi suñuy xel ba xew-xew bu mën a amati ak lu mu réerée ak lu ñu ko réer réel ñun ñu jàngat ca ne fii la ñuy mujj waaye bu ñu fa mujjee nag ndax ñaan nañ yàlla mujj ga mel ni mujj gu waaj ji wala déet duñ ko ñaan yàlla ñun daal buñ sañoon ki nga xam ne moom lañ ñuy nuróoleel bu ñu faatu woon it mooy ku mel ne image si Abdou Khadir boobu wala photo si Abdou Lahat boobu wala bu suñu saliw bii nga xam ne day dox ci tool yi ak dongo yi wala mu toog ak nit ñi di waxtaan ak kilifa yu baax yi wala mu julli si jumaa ji ak sëlmal waaye nag leneen loo xam ne tey jii bu ñu ko génne woon bis pénc te dañ koy génne ji yàlla lu yàlla musal ci loola te ubbil ñu suñuy xel maa ngi koy baamuwaat ba dara ba ñu fëkk léeg-léeg dara xew day mel ni nit ñi duñ ko mën a ñàkk xam bu dee rajo boo déglu ñu ca ca la ñuy wax bu dee télévision boo xool ci la ñuy wax ba mel ni kii moom royukaay la war a doon banaan sax lim defal adduna bi te bokk yi kooka su fi amoon téeméeri atit adduna yàgg na fi mu soog a judd téeméeri atam yooyu adduna dana fi yàggaat lu ko ëpp te du fi nekk waaye ki fiy bàyyi loo xam ne téeméeri at yi ci kanam mën nañ koo jariñoo mooy koo xam ne misaalu ñaari photo yooyu ma la wax rek ak yu mel ni ñoom bari nañ waaye nag ñaari yi ne yoo xam ne bokk yi kenn mënu koo ñàkk ñaar yi benn bi ñépp koy am muy fàttaliku la baqaa u dhikr di fàttaliku nit ki ba faw loolu Seydina Muusa ak Seyd ak Firawna bokkale nañ ko sa bu ñu tuddee Moussa ñaar tudd Firawna waaye mu Seydina Moussa nag moo am asarun tayyib Seydina Moussa la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ma jël la mu doon liggéeyee bañ jot ci ñun kon yàlla nañu yàlla defal des gi fi Seydina Moussa des te musal ñu ci ba faw ci des gi fi Firawna des yaxfirullahu lana wa lakum wa li saa'iril muslimin